ci samdi bi association nationale des imams et oulémas du Sénégal amaloon na ab conférence de presse ngir waxtaani li jëm ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu nag imaam yi ci suñu mission bi nga xam ne ci lañuy yeete nit ñi ci jàkk ak jumaa yeeg ci réew mi yépp ñu daje ne nañu leen wax ak réew mi comme ni ñu koy defee saa yu fekkee ne lii dëgmal nañu ko mooy li ñu wax ñaan nit ñi ñu ànd ak seen sago te xam li ñuy dëgg dëgmal daf ñuy gane si dëkk ak ñun ëllëg mu dem. ci seenub déclaration ñu ngi ñaax ñi nga xamante ni ñooy nguur gi ngir ñu jël matukaay yi war élection jaar ci yoon. ñuy ñaan ñi nga xam ne nag loolu moo nekk ngëneel ñu wax ak réew mi ne ñiy yore li ngaaraange réew mi nañu fexe bu fi dara yàqu nañu fexe ba bu fi kenn gaañu nañu fexe bu bu kenn yàqule te loolu nag ci ñun lay jëkkee. bu kenn yàq alalu jàmbur jaru ko woote ku jël sa carte boo demee ba ci carte urne ba nga dem woote fal nga sa président yow pare nga ca e noonu ñu ngi woo itam ñi nga xamante ni ñoo war a jongante ngir ñu dox jàmm ci seen diggante waaye itam di woo ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ngir ñu caytu bu baax li nga xamante ni moom lañuy ñuy jàllale. ñi nga xam ne ñooy e, candidat yi nañuy waxante jàmm ci seeni kàllaama ci seen i jëf ci seen i programme ndax loolu lañ ciy xaar man de nii laay doxalee nii laa bëgg a doxalee jox leen ma mun naa ma jéem ci. leneen li ñu koy wax tamit ñi nga xam ne mooy journaliste yi xibaar yi nga xam ne dañ koy jot wala li woon ñu war a jote nañ ko jottali ni mu nekkee wax ko ci teggin. ba ñu wax wax boo xam ne day andi baatu fitna ñu segg baat yi. mu nekkoon ab point de presse bu ñu amaloon ngir lancé appel ñi nga xamante ni. nga xamante ni ñooy acteurs principaux ñeel élection présidentielle yu février 2024 yi loolee ngir jàmm am ci réew mi.